waaw yéen a fi jàmm yàgg ñeena way dawlu yi suñu borom yërëm leen te xaaral leen te àjjanay firdawsi ñu feebar tëdd ci hôpital yi ci kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawatina caabi féetee ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàqu tey nag ñu ñëw fii Guédiawaye seet si fi xale ndaataan jamono la wala Cheikh Super jamono wala jamonoy Bamba la lépp dina leer tey fis waaw papa ziar naa la ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant samay ñaari waajur bu baax di nuyu waa Géejawaay bi nga xam ne fi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo di ñaanal suma papa Modou Fadam fa mu nekk ko fi mu jógee ak suma papa Bédi Sey ak mboolem jullit ñi fa fekk ak suma benn mag xam nga Pape Sakho Dior Baye Gueye ñu koy wax ndig xam nga di ñaanal ñu nekk si lalu hôpital yi yàlla yëkkati leen. ñu nekk aussi si kaso yi suñu borom génne leen si jàmm xam nga di la nuyu bu baax di nuy sa caméraman xam nga di nuy sama gars yi nga xam ne ñii duñ samay gaa samay morom lañ ñoom laa foogandool ay ñoom Rasool Ahmed Diba xam nga Paul xam nga sama doomu nday mbaax xam nga yi fii xam nga ñoom Michel Seka Dio Modou Fall xam nga sama fils Modou Fall moom sama rakk la xam nga aussi. waaw di nuyu ñëpp daal di nuyu aussi waa géejawaay bu baax a baax a baax ndax man doomu géejawaay laa. Eh. mais Cheikh depuis sa combat bi nga jugee sa combat bu léegi gis ñuy seex dégg ñu Cheikh ba seex jël xale bi nga xam ne ileer gumba la xamewul jàng ak joor. waaw demoon faju ji rek am nga faju nañ si jàmm ñibbisi nañ si jàmm samay moroom ñoo ma doon daw waaw moo tax ma jël combat bi. non lekkuma avance jàmbur daw dama jël avance war a bëre ma dem di entraîner gaañuwaat waaw ma faju wér naa ñëpp si naa dinaa daan incha allah combat boobu dinaa ko bëre. xam nga xale bi nga jël Brise de Mer yaakaaru caaroy la de xam nga waaw champion la ndaanaan la mbër ma jox cër la moom moo ma daax a bëre moo ma daax a xeex mais dama koy daan eh. incha allah. yaa ma ko laaj mu lu mu wax si làmb ji. wax ju bari ak fecc neen loolu kese nga am si neen li fay neex lépp su géew gi moo koy def. waaw moom mun na fecc mun na def lu ko neex man xam na man fecc kenn xamee wu ma ko sax. waaw man amu am problème mën naa jël loolu mais daan bi dama koy jël moom nee naa la moom moo dàq bëri moo dàq xeex mais man maa dàq daan. nee na gën a xam fi muy daan. waaw ah, incha allah yàlla baax na man liggéey naa li ma war a liggéey lii sax waratuma ay wax nii jëf rek moo ma war a bi te jëf avec manière nag naa la wax waxuma la combat bu yàgg. neen dafa am foo jugee sa fa delluwaat. man incha allah man jugee man si kon kon kon loolu dina baax na man ci ay victoire laa jugee man Boy Seye daanu ma de. <laughs> Boy Seye daanu ma Boy damaa ñëw bëri bëri par Bélexir xam nga maa def action yi am yëpp far yàlla xam nga ma dem ba xam ne man mënatuma bëre man maay dem saaku yi ñëwaat ndax opération laa waroon def mais yooyu yëpp jàll na Boy Seye champion la man Boy Seye bi muy bëre Fils de Balla man bëreewu ma kon man su ma ñëwee bay bëreeg ñooñu jàmbaar laa xam nga man ay brise mer yi yëpp ñoo mag xale bu ndaw laa xam nga ne kuy ànd ak ñi fowandoo ñi xam nga ne xale la mais làmb moom amatul loolu brise mer na jàpp ne maa ko mag sax mais incha allah si kàttanu yàlla suñu borom bu arbitre sifflé bu arbitre sifflé si kàttanu borom bi. man yebbu ma samay supporter arbitre siffle may taxaw wala may xiin xaane arbitre siffle rek maa ci kawam. ma sama diggante ak Cheikh amul bëre damay samp jaaga duma bu mu tëdd. non brise de waaw mais brise bu taxawee ne daf duma moom xam nga loolu wax ji yàqu la rek. français nga nag brise de mer man maa ko gën a gudd cër. gën ko loxo moom au contraire la wax man brise de mer. waaw merci français Marseille gis nga li booy wax waaw brise de mer man maa dul xeex ak moom. yow yaa ñemewul am tudd taxaw di moom. non du parce que xam nga moom dafa mën a bëri te champion la. man dama bëgg a ñëw si mën bëreem bi mu mën bëre ma ñëw fekk si ko si bëreeg moom wureeg moom daan ko mais Brise de Mer bu xeex moo tax ngay daw xeex kooku bu xeex ak man dama koy gaañ <laughs> maa ko a gudd xeex duñ benn de waaw man Père Gomez moom ma yor waaw Père mais loolu dara man Père Gomez moom ma yor. Père Gomez si biir géew gi de. benn mbër musuma dóor corps à corps. yi ma bëreel ñoo ko daax xeex. ay Ziza ay Mamor ay Boysil Giro Seras ñëpp laa daan. ñooñu at kii duñ benn. waaw duñ benn dëgg la mais buñ bëree ba ñu ba mu ñibbi bii semaine buñ bëree ba muy ñibbi danaa noo man seex dama ko xeeboon. wala yow bu ngeen bëree ba nga ñibbi nga soo xam. non non de la vie bii semaine dama koy daan avec manière man sama bët teguma ko fii sama papa président nee na ma teg sama bët si rek rek ak Franc. sa bët nag si moom nga koy teg ndax am nga sam nga leex te kuy jéggi dex du dee la. waaw léegi kon jàppal ne bii mooy sama premier combat. Eh? bii mooy sama premier combat te incha allah damay daan. mais nga sukkandiku ne sa loo wax rek nga ne bii mooy sama premier combat damay daan dama mën a daan fan nga sukkandiku dafa am lu ñu la déy wala. déewuñu ma dara fenn laa ko teg génn naa ñëw naa ut naa doole màggaat naa màggaat naa si bëre. Cheikh Super jamono bu bees tàkk ngay gis. waaw yàlla baax na bala le 19. bi sifflé yow foo toog. di nga dar gémmiñ di nga ne lii lan la Cheikh super jamono bu bees tàkk ngay gis. non Cheikh ma xamoon Cheikh ma gis nii ba. waa léegi le 19 incha allah si kàttanu yàlla di nga gis Cheikh bu bees tàkk <laughs> di nga gis Cheikh super jamono bu bees tàkk. non Cheikh mi ma xamoon ñëw samp jaaga. jokko maa jor jokko ki dinañ ko gis la 19. bu ko raw ngay gis ndax man samay supporter daa am lu ñu ma wax xam nga man na dama bëgg daan ba mu ëpp gars yi dañ naan ma naay samp jaaga may leen non non xam nga lu ñuy laajte ku daan. mais combat bi incha allah Brise moom na ma rey garaawul mais man dama koy daan baat bi sifflé man si kawam laay ñëw moo xam dañuy daje mais man damay ñëw. bu xeexee. maa ko gën a gudd cër man xale la bu sama coup droite bii bu ko dalee du baax si moom de. te yàlla bu mu ko dal naa ko jàpp rek daan ko parce que moom daa baax dama ko jox cër ndax ñëpp a daw sama avance mu jël man samay morom ñemewuñu ma de. yow yaa ñemewul say naa ak Seydina samay morom ñemewuñu ma. billaahi samay morom kenn ñemewu ma man bokkuma ak mbër yi ñu utal yoon fii am mbër yoo xam ne ay yoon lañ leen utal man kenn utalu ma yoon man damaa xool fi nga xamante ne ay xaaxaam la am ma jaar fa. non gaaruwaale non man gaaruwaale wu ma kenn man loolu noonu bañ koy bëree bëgg bëre bëre bëgg bañ bëre bëre la. yow baal ma fi nga moo tax ma ne la bëgg bëre bëre bañ bëre bëre man bu ma bëree ba si guddi gi laa la wax sama combat day taxaw man damay daan si kattanu yàlla suñu borom damay daan avec manière Gaynde lu ma liggéey bu arbitre sifflé dama koy wane du ay caaxaan du ay wax bu bëri lii waruma nee naa la dafa mun a ñàkk rek mais waruma xam nga lu ma war Cheikh Super Diamono le 19 arbitre sifflé ma wane li ma liggéey dama seeti ko anamu fan la ne na combat bi taxaw. dama ko mu ne fi nga wékk làmb ji moom xam na ko mu ngi fa toog di la xaar. wax dëgg yàlla Cheikh Super Diamono. wéeg ko si gàllaaj wéeg si fenn lu dul xam nga lan su may ñaanu waajur ak su may ñaanu nit yu baax yi ak su may entraînement barke alxuraanu karim xool ma bu baax a baax amul lu ma sangoo amul lu ma tax si naturel tout entraînement mooy lépp. daanatul mbër sangu daanatul moo tax ma ne la nag entraînement mooy lépp barke alxuraanu karim gaynde tegle naa cinq victoire dew ma sëriñ damay daan booy sil xaw ma turam gros serrage ma koy daan xaw ma turam bëgguma lim quoi cinq sama booy xam nañ li ma wax ay sabala xaw ma seen tur samay entraîneur dañuy ñëw di ma yóbbu ne ma yow da nga dof ma leen nañ dem damay daan. ndax sax paa boobu nekk Saalum <laughs> wallaay xaw ma seen tur ay combat yu métti ah, ay Saalum 2 fii gene ma jàmbaar laa de luñ ma yónnee ah, ay Scorpion. man damaa gis ay combat jànq rek la bëri si carrière lan la. su musuma bëri combat bu yomb man dama bëgg a nekk champion dama bëgg bu ñu may limal may toog di savourer di kontaan sama bopp mais ñaanu ma yàlla ñu may limal ñu naan ay yambar la daan wala ay mag la daan jamais man soxla ma yoon lamb daa war a metti ñun booy ñooy mujjee làmb kon dañoo war a bëri suñu biir suñu bëriwul suñu biir après am na ñoom dañuy wàcc rek par force ndax mag yi dañuy bàyyi ñun lañ fiy bàyyi làmb ji par force la kon dañu war a teel a bëri suñu biir revanche si kanam xaalis bi mën fa génn. le 19 lañ leen mën a xaar si Cheikh Super Jamono wala Jamono Cheikh. Cheikh Super Jamono. new look bu bees tàkk Cheikh Super Jamono si bëre bu bees tàkk si caractère bu bees tàkk si arbitre bu sifflé mu indi leneen si bu bees tàkk nag. mën nañoo xaar Cheikh Super Jamono mu ñu daan gis Esat Ndiar yëpp. bu ko raw ngeen di gis nag bu ko raw ngeen di gis athlète combattant xoolal dama liggéey brise. yow ndaanaan nga mais jàppal ne cinquante minutes mën naa kaa bëri te duñ fa egg waaw ah, dama dégg mu ne moom maas jaaxalu ko waaw ah, man même bu ma indi woon maas jàppal ne maas bi jeex na tàkk parce que alxuraan. nee na bi bëri fu moo dàq sa baat ak tontu la ko waaw ñoom nañ ma dàq bëri mais man treize mbër daan naa leen ñi ma daan ñëpp ku si nekk jëli bi ma la daan bokkut ak sa morom kon man mënu ma bëri de. daan nga mën. <laughs> dama mun daan eh, te le 19. Hmm. dina xam ne man dama moom moo ma dàq bëre mais dama ko dàq daan te incha allah dama koy daan si kàttanu yàlla avec manière suma ma bëree moom combat bu yàgg jële bi man du ma ko bëgg man dama war a ñëw daan avec manière dem wëri ko daa am ku ma war a wëri. Ah, du ma tudd tër. daa am ku ma war a wëri bu ma daanee incha allah. <laughs> ma de daa am ku ma wër a wëri wax laa lay wax ah. su ma daanee naa joo jubal si yow ne la ki may wër laay wër ah. déggoo ma de ki may wër laay wër te bu bëriwul booy dem jëli ko mu ñëw bëri ñu daan ko yóbbuwaat ko. lan ngay wax waa jàmbaar. waa jàmbaar dama leen di remercier bu baax a baax Mansour Ba Papa Sow kii assurance ak suma jigéen ji nga xam ne euh, ami Collé waaw ñoom dañ ma taxaw parce que dama dem xam nga blessé. moo woo leen ñu dollil ma sax xaalis noo fajul kon ñu mel ni ñooñu tey jii dañoo jara waaw sant bu baax a baax état bi aussi nañ gën a jàppale làmb sponsor yi nañu wuy si waa jàmbaar ndax waa jàmbaar dañoo indi si waaw nañ wuy si làmb mais nag nit ku nekk man waa jàmbaar laa signé contrat waaw man bu mu amoon dix sponsor waa jàmbaar laa koy jox tey parce que ñoom ñoo ma jox avance waaw su ma demee ba faju seen xaalis si la bokk kon su ma amoon cent sponsor ñoom laay ñëw na leen am kon maa ngi woo sponsor yi ñëw gën a jàppale waa jàmbaar si combat le 19 incha allahu rabi Mansour Ba nit ku baax la Papa Sow nit ku baax la assurance aussi nit ku baax Collé aussi noonu ay nit yu oyof nit yu baax a baax a baax ñooñu ñooñu waaw. lan nga wax kàddu gu mujj at lan nga yóbbante Brise de Mer. amul lu ma koy wax champion la ndaanaan la moom ma daax a bëree moo ma daax a xeex mais incha allah dinaa ko daan lenn rek laa koy wax ngir yàlla bul ma xeeb. loolu kese laa koy wax su ma xeebee rek jëli bi day yomb mais bu ma xeebul dinañ bëri combat bu neex te moom dafa mën a bëri loolu laa koy wax di woo waa géejawaay bu baax a baax a baax kenn wax ne man doomu géejawaay laa ma lébu dañ naan ma yaay lébu